bismillah fii nii ak daara yàllaaw sali baqa abi bi fiq yàllaaw yaa man lawal amru yaa man laa sharika lahu wasi wa ma liwaat asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki téléspectateurs yi ñu bàyyi xel saa su ne ñu ngi rafetluwaat bu baax ànd bi ngeen ànd ak ñun nuyu leen ziar leen di jiital ci néew bi ak ziar bi Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké Bachir xalif général des Mourides di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér noonu lañ koy ñaanalee mbooleem kilifa yi diine yëpp mbokk yi tey mardi 28 janvier 2020 di ñaari fan ci maamu koor di juma de saani atum 1441 ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi fii ci Kaolack Kaolack ku ko wax wax Cheikh Mouhamadoul Kaolack ku ko wax da nga tudd Serigne Moussa mi nga xam ne moom moo doonoon jëwriñ fii nga xam ne moo di ci dëkk bi ki nga xam ne moo di xalif général des Mourides Cheikh Amadou Mountakha Mbacké Bachir fas yéene doon ganu diwaanub Kaolack diirub ñetti fan muy 28 janvier 29 ba la 30 ndax ku ne xam ne ne ñu ngi waajal màggalu Poroxaan di maggal gi nga xam ne moom lañ jagleel maam ju tedd ja di soxna Mariama Bousso Jaaratullah loolee di sababu sëriñ bi fas yéene dem Poroxaan waaye di jaar ci dëkk bi nga xam ne moom moo di Kaolack fas yéene dafay def ngan loole nag sëriñ bi daan na ko amal ci jamono yi nga xam ne doonagul loon xalif général des mourides ne saa yu daan dem Poroxaan daan na jaar Kaolack ngir amal fi ngan loole moom la yeesalaat ci dëkk bi ba tax na lu ni mel nekk lu màgg lool ci waa Kaolack ñu waajal ko bu baax a baax waaye nag mboolem kilifa yi jëwriñ yi euh, sang si nga xam ne ñoo nekk si dëkk bi doo ñoom ñëpp ndax gan doo xaar toog ba mu dugg ci biir dangay dem gàttanu ji ko ndax d gan gi nga xam ne moom lañ am muy xalif général des moo waral mboolem kilifa yi dem ci sorti dëkk ba àndandoo ñoom ñëpp mboolem moto jakarta yi oto yi kilifa yi bàyyuñ kenn taalibe yi kenn ku ci nekk na nga xam ne noonu ngay gàttandoo sëriñ bi rek fi nga xam ne moom moo di ci entrée Kaolack bi ndax ku ne xam ne sëriñ bi mi ngi bàyyeekoo fi nga xam ne moo di ca Ndakaaru ñëw fii ci Kaolack ndangaan ci diirum ñetti fan kon mbokk téléspectateurs yi daanañ taataan ay kàddu yee jëwriñ yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi waaye it mboolem taalibe yi kilifa yi duñ bàyyi kenn jëwriñ yi ba ci ni nga xam ne noon la Baye Fall yi accueillir ki nga xam ne moo di Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bachir fii ci Kaolack bokk téléspectateurs yi kon ñu ànd ak yéen dëgtal leen lépp loo xam ne mooy bàyyi ko fii ci Kaolack rawatina accueil bu am solo bi nga xam ne amal nañ ko fii ci diwaan bi ngir jagleel ko xalif général des mourides isan yuqal li duli ya Allah ajbarta li imakal jabar doona liqan كل الإبداع بنفسي اللي اخترته يا الله عجبت لي إنك الجبار دون الإنقاذ كل الإبداع بنفسي اللي اخترته يا الله كرهتني كل في كبر بلا كل يا متكبر waaw waaw incha allah euh, di sant yàlla bu baax a baax di sant yàlla bu baax ci ñëw gi nga xam ne waaw fas fas fi ñëw. waaw euh, comme ni ñu ko daan defee rek ba mu nekkee Cheikh Madoul Bachir nga xamante ne nii ku wax Kaolack ku wax sëñ Basiru waaw rawatina tey mu toog mu toog toogaayu sëñ waa ci kaw jamono. waaw war jëm nag dëkk ab dëkkam Poroxaan war a nekk ganu Kaolack ñetti fan waaw loolu lañ ci sant yàlla bu baax a baax a baax. Euh, Kaolack yëpp nag dégg nga mboolem kuy nekk ab jurit ñu nekkul jurit sax ne ubbi nañ seen xol ak seen xel da tijji seen kër ak seen néeg da nga fas ko yéene teeru am euh, euh, mujj bàyyi loolu ngir murid yi dégg taxaw buñ ci taxaw julit sax laay wax ndax mbokk tijaan taxawaay boobu lañ ci am ñoom it taxawaay bu rafet boo xamante nii da bëgg nañ cee liggéeyal yàlla waaw dañoo wax ne considéré li liñ bind ci ñi wax la bëgg nañoo bëgg nañoo togg añ ak bëgg nañoo togg reer dañ togg na na nga mi ndab bi ñu ko calculé da nga mën a ñaata million ndab yu teg ci añ bi da reer bi di xam naa dina ko jege waaye loolu nag yaakaar naa mu ta weesu da nga lu du yéene ak jëf ju rafet tubaarkàlla waa gan ganu Kaolack yëpp la parce que xam nga Kaolack Kaolack dama dama nga maam ci euh, nekk am nga kenn ku ci nekk yàkkamti ah, yàlla waaye xalifaam gi moom nit ñi dañ ko ko yéene waaw dañ ko ko bi waaw lu moom dañ ko ko yëpp ci am mbégte mboolem juuti Kaolack yëpp ci am mbégte wala na xasim waaw tubaarkàlla waaw waaw moom te te te dañuy confirmé tey dañuy confirmé waaw tey mu confirmation la dégg nga <laughs> waa kay si la jërëjëf. waaw xanaa wax lu Cheikhul Khadim waxoon keroog ba nga xam ne weeru koor yi teru na te mu fas ko yéene ter rek wax yaa xayra dayfin ata bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi tarxiban bila adadin na moom lañ fas yéene tertoo sëriñ bi mooy fas yéene lépp loo xamee ne dana tax murit bu nurub murit ñu fas ko yéene melokaano lépp loo xam ne it ay teraanga la murid yi fas yéene ko fas ko jël ak jël seeni i jëmm jëbbalaat ko Cheikh Mouhamadou Mountakha Kaolack am na gan goo xam ne gëj na ko am muy xalifa général des Mourides ñëw ci dëkk bi fas yéene gane mbokki taalibe def fi ñetti fan loolu lu rëy rëy ci ñun la waaye nag moom dayoo boobu rek la si Cheikh Mountakha am ndax la Sëriñ Tuubaa wax ne katabtu anna al muntaxa qad faaqa man mada wa man yaati wa man fii sa zaman wax ne muntaxa raw na ku mën a doon loolu dañ koy déggee ci dinañ ko déggee ca démb waaye dinañ ko déggeewaat ci tey waaye kon ñu xam ne daal sëñ lu Kaolack gépp génn na Kaolack yëg na ne Sëriñ Tuubaa ngi ñëw ci dëkk bi fu taalibe ne am nga yëg-yëg boobu ci yëg-yëg boobu ci sa bopp kon ñuy ñaan suñ borom mu yëgsil ko ci jàmm ñuy soññ suñ bopp di soññ bokk taalibe yëpp lu ñu am ci yar lu ñu am ci teggin doyut luñ góorgóorlu ci jéem a sàmmanteeg teggini sëriñ bi ndax loolu mooy leenu ñuy jëriñ li sëriñ bi wax ne na nga am teggin sa digganteeg sa kilifa loolu dafa mat a sàmmante rawatina taalibe boo xam ne sëriñ bi dafay jóg ñëw ci yow ndax Cheikh Abdoul mu bàkke mu baax ma daa ma sox Sëriñ Abdoulaye Dieye ne ko firin ma inna alladina ila sarsara qad qasadu ziyaarati faaraqu daarayni aw zaara mu firi ko mu ne ko baa jàppoo ne ñu fekkewoon Sëriñ Tuubaa gànnaar rek ca la yem mu ne ko ah loolu de laa jàngoon ci téere yi mu ne ko déedéet sëriñ bi jóg dem sekki bokki taalibeem suñ borom da dugal ci njëggal googee taalibe bi jóg seeti mbokk taalibeem sëriñ bi da koy sa da koy dugal ci njëggal googee taalib bi jóg seeti sëriñam sa da koy dugal ci njëggal googee kon Kaolack am na njëggal gu rëy ndax seen sëriñ sëriñ moo fi ñëw kon loola yàlla nañu ci sa borom boole ñuy ñaan suñ borom tawféex ju ju ab dëkk ma am rek Kaolack am ko ci ñëw si Mouhamadul Mountakha gi la Serigne Fallou Mbacke mu baax ma waxoon ne Kaolack seng ca kaw Kaolack ca kaw yàlla na na ko sama borom gën a yokkal ci ñëw si Mouhamadul Mountakha gi taalibe yëpp gis nga ci njiitul Serigne Moussa Nawel mi ngi fi Serigne Babacar Baye Alaaji Seeni Seck mbooleem magi taalibe yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi soo duggee ci dëkk bi dëkk foo jàdd mbogal mbooloo yaa nga fa nekk di jaayante di togg ay teggu di defar ay xéewal ngir fas yéene teral sëriñ bi ak gan ñu baax ñi nga xam ne ñoom la àndal الوزير لاسي لغاد جملة ما لاخترت الدنيا وأخرى منك يا الله أكمت يا أكم باقي بكون يا سعد فوزي بما قاب من بسراك يا الله على يا أدلو أه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 وخط لي من كائل ما القيب يا الله عفى الأليم لافي صحصحت جملة ما لم تملأ لي لخير دهر يا الله عفى الأليم لافي بان نزامته لخوت فلن أسير من منك يا الله الله لاسي لقط مغفرة معك يا برادي تعنك يا الله أجازك لاسي كلي لديك ريدا ولي سكر تجمي أسه يا الله الوافي أحليت لي أبدا بخير مكر ودين على التحيا الله أنا الكبير لاسي بانت كبارة لي خطفل لي خط منك كبي الأجر يا الله أنت الكبير الذي بانت كبارة لخبت من ككبي العجير يا الله عسى الأسيس ناسي وجاءت في أباد إلى سواي الإيداع والضر يا الله أنت المقيت لاسي خلقت لي رقادا بلا إصاب إلى الجنات يا الله أنت الأسيب الذي قد اكتفيت به عن الإدعاء والآسى والكد يا الله أنت الجليل الذي ساخ جلالته إلى سوى ما لدى دعيني يا الله أنت الكريم الذي قد قدت لي كراما دنيا وأخرى مع تفسير يا الله أنت رقيب الذي بعنت يا نتوب كلي كليتي أنسي ورلوان يا الله أنت المجيب لاسم خلادا بخيران إجابة من كلي لاخترت يا الله وإنك الواسع الباغي ولي أبدا وزهت توسئة بالإبق يا الله أنت الأكيم لاسي أبلغتني لسوى مضاني وما أو تسوء يا الله أنت الودود لسيل قاد المواد سرمدا بريلا والقرب يا الله عسى المجيد لاسي بان المجادة وخد تبتلي منك مجدا فاخ يا الله وإنك البعيس المقي بلا ضرر كويتني جملة الأدار يا الله أنت سيد الأسين هذا سعادته لبثرائك من نساك يا الله يا خير صبيعة كلام جملة ما لم تر لي مطلقا بالفضل يا الله يا قليل أبي قلوا وجملة ما لم تر لي مطلقا بالفضل يا الله أنت الوكيل ناسي قد اكتفيت بي في الدفء والجلبية فالخلق يا الله في الدفء والجلبية فالخلق يا الله في الدفء والجلبية فالخلق يا الله في الدفء والجلبية فالخلق يا الله تلبيا سالخلق يا علام أنت الوكيل الذي قد اكتفيت به في الدفع والجلبية سالخلق يا الله أنت القوي الذي هويتني بردا في سر والجنية سالأمر يا الله أنت المتين لاسي قد كنت لي بمنن ولا توجئ بمكروه يا الله أنت الولي لاسي لا أتقي بدلا بي ولي كنت بت التعبيد يا الله أنت الأميد لاسي أنت الأميد لاسي وجعت لي نعما بلا قرور وقير المكر يا الله أنت الولي لاسي لا أتقي بدلا بي ولي كنت بالتعبير يا الله أنت الأميد لاسي وجاك لي نعما بلا قروب وقير المكر يا الله يا موسي القلق والأسياء جملتي تليتني دراما أتيت يا الله يا مبدع القلق يا ما لا تواجهني ما لا أحب بنادي عنك يا الله يا مبدع الخلق يا من لا تواجهني ما لا أحب بنادي عنك يا الله مريد مدى أو دل خدت لي كرما في كل سهل rin ويوم فيك يا الله محيي بخير آيات جدت لي أبدا فلا تسري بصفو الأمر يا الله مميت قد سخت موتي للدى ولا أم مكارمي سخت في الدارين يا الله يا عمدي وسكري مرضاي ما أن مني يقص دون سخط منك يا الله يا عمدي وسكري مرضاي ما أن مني يقص دون سخط منك يا الله قال حق تعالي ما عن نمو بغير كسب إلى الجنات يا الله غير مخط قتال ما كنت أعلم بغير كسب إلى الجنات يا الله أرسلت لي واجد الأسمان دونانا لك الوجود لاسي لبان يا الله يا ماجد عليا دارين متليم بخير كبر وعد بن ربي يا الله يا وايد عليا دارين منفردا ما المنى بآسي سن منك يا الله يا واحد اليد دارين منفردا مع المنى بآسي سن منك يا الله لك التجائي بما لقيل يا سمد بسرا لجملتي من أحببت يا الله عزيت يا قادر nekk sëñ Talla Wade nekk jëwriñ fii nii ci kaw Kaolack ci waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall mu mel ni waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall tamit ñoom it ñëw nañ ngir gàttandu gan gu tedd gi di Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bachir fii ci Kaolack. waaw ñoo ngi nuyu mbokk yëpp di siyaare ñëpp ci turu ki nga xam ne mooy jëwriñu Serigne Touba di Serigne Cheikh Jëmb ngir moo jiite liggéey bi te nekk fee ca Mbacké ñëw gi ñu ñëw fii ngan gi rek moo nu fi bàyyi. moo ñu fee ni ñoo nga woon ca liggéey ba nga gee ñu fi bàyyi waaye ku toll na sëñ Tuubaa nag buy ñëw ci dëkk ba nga nekk dangay xam ne xéewal dottiku na te kenn ku nekk war nga caa jariñu te warees naa mën a fasaaleel taalibe yëpp ngir njariñ ak xéewal mën a tàbbi ci seen biir waaw. waaw mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk Kaolack ànd nañ dajaloo sëñ Mor Talla Fall a ngi nii sëñ Fallou Fall moom sëñ Cheikh Fall Khady Gueye ak njaboot ak Cheikh yooyu yëpp ànd nañ maase xam ne sëñ Tuubaa moo tàbbi fii ci barab bi te doon njariñal tey ak ëllëg tey koo xam diine ñun ñiy Baay Faal dañoo amut duñu ko fayee lu doolu koo jox suñu bopp ndax ñun liggéey lañ baaxoo kon bu fekkee ne daf ñuy teg loo xam diine mooy tax ñu def li ñu war a def ak sant lay doon ci noonu waaye nañ ñu xam ne Kaolack am na ngëneel tey waaye buñ topp raj raj li ñañ jiital li sos yoon wi muy ak taalibe ak ak dal ak ak nangu gis sëñ bi fexe ba am pas-pas moo ko ëpp solo ci noonu nañ fexe ba yi rafetal ko te kuy ñëw nga fas ajo ju faju rek boo gisee sëñ bi sa aajo na faju boo gisut aajo dina faju ndax sëñ bi moo ñu gën a yor bëti xol te moo ñu gis saayir ak baatin loolu daal mooy li nga xam dina ñoo ngi koy dénk mbokki taalibe yi kenn bana woy ak matadi kenn bana bañ a wane ak doyadi kenn bañ a wane ak manqué ndax xamewun nu loolu te loolu warut a nekk fi noonu Ndiaye di jëwriñ daara Ahlul Minan bu Kaolack ñu gis ne Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké tey euh, Bachir tey ñëw na Kaolack doon ganu Kaolack yéen ngeen nekk daara joo xam ne da ngeen di yëngatu euh, ci liggéey Serigne Touba rawatina kër Cheikh Amadou Bachir naka ngeen accueillir euh, sëñ bi rawatina ci wàllu xasida yi. salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu euh, jërëjëf ñu ngi leen nuyu baax te di leen siyaar baax di am mbégte ci bisub tey bii ndax yéen nag Serigne tubaa benn bëccëg jar na sant suñu borom baax jar na sant suñu Touba te ki fi ñëw Serigne tubaa la sëñ ma sëñ Touba Cheikh Mamadou Mountakha moo fi ñëw. Cheikh Mamadou Mountakha nag bu ñëwee ci pàkku Cheikh Mamadou Bachir njabootu Serigne Abdoul Hakim Mbacke def naa ne kenn war leen a jiitu ci ñu koy teeru loolu mooy sabab maanaam tey jii sunu teewaay fii ci ëttub Cheikh Mamadou Bachir bi dafa teeru Cheikh Mamadou Mountakha ñu njabootu Serigne Abdoulaye Hakim ànd ak kuréel yi jànkatu xasida yi ñëw doon teeru Serigne Mountakha Serigne Fallou Sylla gis nañu tamit euh, maanaam kuréel yu mag yi nekk Kaolack dañoo àndandoo doon benn muy ahlu minan muy istarxiya euh, ne moo nekk kër sëñ ñoom ñëpp euh, di Hizbullah ñoom ñëpp ñu àndandoo doon benn daal di accueillir sëñ bi. Ah, waaw daar kàlla jërëjëf noonu noonu la ko sëriñ bëggee waaw ah, noonu la ko sëriñ bëggee ndax euh, lépp benn la waaw ah, lépp benn la isbu tarxiya ahlul minan Hizbullah yi euh, yëpp mbooloo yëpp mbooloo loo xam ne ñoo bokk lu ñuy def ñoo bokk lu ñuy ñoo bokk lu wax xas yi sëñ tubaay li ñuy wax xas sëñ tubaay li ñuy jàng te macha allah ku ci jàng ku nekk mën na koo xàmmeeg la moromam di jàng kon nag bu ñu dajee Euh, dar ko asib yaa ngi nii loolu moo waral seen sabab bi maanaam ñu jaxasoo ñun ñetti kuréel yëpp incha allah rek teeru sëriñ bi waaw loolu mooy sabab ba ñetti fan loolu moom bu ñappee na ñu bàyyi suñu bokk taal bi moom ba ba poroxaan nekk faak moom ba ñu ngi fii nii ci pencum euh, sëriñ Bassirou Mbacké ci euh, gattanu gan gu tedd gi di Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ñu ngeek sëriñ Mortala Fall di jëwriñ daara Hizbullah d'ailleurs jamono bi sax ñoom ñoo jàng yëkkati xasida nii mu mel ni mboolem daayira yi nekk Kaolack dañoo àndandoo muy Hizbut Tarqiyyah Hizbullah ak Ahlu Minan doon benn yëkkati xasida ngir teertu gan gi nga xam ne du ñaar kenn la ci ñoom. dëgg la jërëjëf sëñ sëñ Fallou maanaam ni ko waxee noonu la nga demee di ziare mbokk taalibe bi yëpp di ñaan sëñ Muntaxa yàgg fi lool yàgg fi yàgg suñu gannaaw lépp lu mu yéene liggéey sëñ Tuubaa yàlla na ko sa borom defal li mu sëmb naal ko yàlla na ko sant ba naalaat yeneen ñu sum ñu fekkee lépp di ko ñaanal wér ak tawféex ñaanal ko mboolem ko fi teew ak ñu yéene teew te teewoo fi sax yàlla na sama borom boole la ci xéewal yi sant nañ bu baax waa daal isbulaa ñoo nekk ci gannaaw ànd ko waa isbu taraxee ak mu ahlu nan ñu ànd bu rafet boo xam ne lépp sëñ Tuubaa rek la sotti ceeg def ci la si Abdoulaye Diop waxtaan ni waxtaan bu rafet ñu bokk ànd nañ di ko liggéey bi fii ñetti fan yëpp noonu lañ koy jàppoo kenn ku nekk waxtu war a jàng daan ko xam kuréel bu nekk waxtu war a jàng daan ko xam waxtu war a war dañ ko xam ñëpp ñu bokk nekk benn nekk benn lépp ñu liggéey sëñ Tuubaa Sëriñ Faal jërë ngeen jëf mbokki yi euh, ñoo ko àndandoo woon ak yéen gis ngeen ni nga xam ne noonu la waa Kaolack ak euh, Serigne Mountakha Mbacké Bachir di xalif général des ci dëkk bu mag bi nga xam ne moom moo di Kaolack nekk euh, gàttanu googoo xam ne am na solo lool ndax gis ngeen ni nga xam ne noonu la moto Jakarta yi génnee ku wax Kaolack wax moto Jakarta ni nga xam ne noonu la kilifa yi génnee oto yi taalibe Euh, mag ndaw góor jigéen ñëpp rek ngir gan gu tedd gi nga xam ne moo di sëñ Mountakha Mbacké Bachir donc mbokki téléspectateurs yi lii mooy li nga xam ne moom lañ leen indiloon tey jii di euh, mardi 28 janvier 2020 ci ngan gi nga xam ne sëñ Mountakha Mbacké Bachir moom lay amal fii nii ci doonub Kaolack di diirub ñetti fan laataa mu fi bàyyeekoo ngir dem ci dëkk bu sell ba di Poroxaan ngir ñu màggal wala waajal màggalu ko soxna bu Mariama Bousso laa fas yéene doon le 5 mars 2020 incha allah santaat leen gërëm leen ci teewlu gi dig leen daje incha allah ci yeneen i jotaay wala reportage yoo xam ne dañ ko ama fii nii ci Kaolack lépp rek jëm ci nganuk jëma ju tedd bi di ko ñaanalaat mu yàgg fi lool tànd ak wér wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.